dal leen ak jàmm ci la yéen a kay xëy gën tey ci Rewmi FM Rewmi Quotidien ne dëgg-dëgg politique nag jaf naa nan ndax boo demee ba yaakaar ne dana am lu sotti rek am yeneen galgal ak yeneen rëq-rëq yoo xam ne jaar na ci diggante bi yi ni cabinet li koy firndeel dëgg-dëgg mooy ne jamono ji nga xam ne ji ñu bëri ñu ngi doon xaat wàllu retrouvaille di waxtaan ci diggante président Abdoulaye Wade ak président Macky Sall ñaari kilifa yooy le beneen jafe-jafe ñëwaat na laqasuwaat ci retrouvaille bi ni mel hélicoptère militaire bi nga xam ne bi lankal nañu ko maître Abdoulaye Wade ngir mu dem ca doon bu Kaolack niki démb ngir mu dem jébbal njaalam ci lakk xalif général bu Léona Niass di El Hadji Ibrahima Niass rax ci dool tamit lu jëm ci maître Abdoulaye Wade ka lànk gëmul lànk ngir ñu tuddee ko aéroport Abdoulaye i kaay bi lii na ci li nga xam ne li bu ñu muy jafe dana traité ci diggante kilifa yii li mel jamono ji nga xam ne ji ay fan dong ngi nii ci gannaaw moom maître Abdoulaye Wade mboolem moomeelam ji nga xam ne ji yoon da koo tegoon loxo mujj lañu ko jëlaat lépp delloo ko ko ñu jàpp ne sax fi ñu toll li jàmm dana dox ci diggante maître Abdoulaye Wade ak président Macky waaye li ni mel mujj ta sotti ndax am na ay xabaar yu leer nañ yu doon firndeel ne waxtaan ci suuf mi ngi doon dox ci diggante maître Abdoulaye Wade ak président Macky li ci gën a dolli wat ñun ñi amoon ca bokk na ci woote bi nga xam ne bi xalif général des Mourides Serigne Sidi Makhtar Mbacké woote woon na ko ngir dialogue politique wala dialogue national di waxtaan am ci réewu Sénégal waaye lii lépp fi ñu toll ni am na yeneen jafe-jafe yoo xam ni amaat na ci moo tax ni sax jafe-jafe bu dee diggante maître Abdoulaye Wade ak président Macky Sall moom seen jafe-jafe li ci gën a fees bokk na ci mbirum Karim Wade naka la ñuy def ba mu jógee ca Qatar ñëw ci réewu Sénégal lu jëm ci wàllu candidature am tamit ci élection yi ñu dëgmal yéen kaay bi li lii lépp daal mooy firndeel ne politique jafe na nan ndax bu ñu demee ba yaakaar ne diggante maître Abdoulaye Wade ak président Macky Sall jàmm dana ci am rek leneen ñëwaat ci li ci ñëwaatee ngir indi a foofu jeexi jaax ci lu jëm ci seen bokk na ci moom maître Abdoulaye Wade kaddu yi mu yëkkati niki démb ca Léona Niass seen moom maître Abdoulaye Wade ne bokkut ak waaw ah président yi nga xam ni daanaka suñu demee Touba ne murit la ñu suñu demee Tiwaawoon ne Tijaan la ñu waaw ah, moom maître Abdoulaye Wade ne nit la koo xam ne kii kër kilifa diine bu mu dem ñu jokk wàccuwaayam ah, waaye li mu bañ moom maître Abdoulaye Wade dëgg-dëgg vox populi xëy na ci tey ne bëggul tey bëggul ëllëg ñu jëlee Touré Blaise bi nga xam ne bi moom maître Abdoulaye Wade bëggoon na koo tuddee aéroport ba tey jëlee ñu koy jëlee ci aw turam di ko def ci aw turam moom maître lay Wade ne Blaise Diagne ci boppam héros la jàmbaar yi fàkk dëkk dëgg dëgg la ndax lu bëri bëri defal na ko réewu Sénégal moo tax moom maître Abdoulaye Wade ne président Macky Sall bés bu ko tuddee aéroport bu jas bi dana ko yóbbu ca yoon yéen bi di ko tëjee ne bi xam ne bi Aly Ngouille Ndiaye bëgg na ko wote ni ko ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre bi ñu dëgmal bu muyul ay parti cabine téléphonique dong la fay dalal ndax parti gën a am ci opposition bi nee nañu duñ fa teg seen tànk Walf Quotidien ne bu ñu xool sax kay dialogue boobu lay président Macky am loo xam ne président Macky Sall da ko boot ca gannaaw ndax am ndëgg yoo xam ni da ko bëgg lalal opposition bu Sénégal jamono jojale moom parti démocratique sénégalais ña ngay xool naka la ñu mën a indi ay joynte dëgg-dëgg ci seen parti bi li fekk 2019 la tribune ay joynte kay dëgg-dëgg dana am ci biir parti bi ndax ñu ngi koy waajal xoolaat dëgg-dëgg kenn ku nekk fan lañ la mën a tekk ngir ñoom ci boppam ñu mën a waajal dëgg-dëgg élection présidentielle yu 2019 président Macky Sall ak parti politique yi mu ànd ak ni ay alliés yi ni kab di ko téjee ne Abdou Fall bokk du lenn lu Fall c'est un homme aux nombreux intérêts en conflit ndax conflit dafa am ca Zimbabwe wala déet Rewmi Quotidien li léeboon mooy njiitu réew mi di Robert Mugabe jamono ji moom l'armée ba moo ko jël teg ko ci ab bërëb ba noppi di may gëtt li nga xam ne bi moom mooy assemblée nationale ak réew mi ak na muy doxee yéen i kabi ne mbaa am coup d'état dëgg-dëgg moo am Rewmi Quotidien ne li leen bu mooy kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca l'armée ba ñoom ña nga weddi tuuma ne coup d'état amul ci réew Robert Mugabe fu ñu ko dëj amul fa benn jafe-jafe Dakar Times ne li leen bu daal mooy réew bu Zimbabwe mi ngi ci crise ci wàllu politique communauté international bi ci boppam di sako ak dal am ci réew bu Zimbabwe leer na nañu ne gayndu Sénégal président Macky Sall baaxee na leen ay koppar lu toll ci ñaar fukki million ci kep koo xam ne ki gaynde nga ak ñi nga xam ne ñoo leen gunge ci jongante yi doon amal observateur koppar yooyu le bu ñu muy dana jot fi na dëgg-dëgg ndax séddale ga ci boppam mënu guñu ko def ndax fi ñu toll yi xamuñu kan moo yeeyoo ñaar fukki millions yooyu le ak kan moo ko yeewul ci équipe nationale bu Sénégal Sénégal bu muy la ci coupe du monde 2018 dana dajek Brésil Allemagne Argentine wala sax Espagne Aliou Cissé ci di kat bi di stade ne gaynde Sénégal ak fi ñu toll ak xarañ gi nekk ci ñoom mën nañoo sori lool ci coupe du monde